اغفر لأمته وارحم بأمته وسر لها واذكرها ربي الله نظم كذبت رسل gi ñu am tey amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te loolu njaboot bi yépp la ak tund bi yépp ci sa dugg ci biir keppaar bi nga xamante ni tabaarakallah keppaaru maam maaram la ndax moo meññil ca Tuubaa meññ fii mhm. buñ ko dee lim ci bëccëg yooyu am te muy bëccëgu mbégte duñu fi jóg ba suñu bésu tey bii xanaa rek ñu euh, suñu waju Pape Sidi Ahmed am lu mu waxoon ko tënk rek ci jotaay bi mm-hmm. ci loo xamante ni Cheikh Hadj Malick si Maodo sa mag gi mm-hmm. moo ko defoon ba mu nekkee Égypte doon fa jàng ak mbokkam yu baax ya di njabootu mam borom Touba amoon xew-xew bu amoon ci muy màggal jot fekk leen ca Égypte bañ ko ca yónnee daawa mu war a wuy ca woote ba mhm. ab yaat yi mu ci defoon la Pape Sidi Ahmed wax nañ ko baaxantal te barkeeloo ko mhm. ngeen baal ma nag gannaaw ba ñu nuyoo nag sëriñ bi njaboot gi mu àndal yëpp tabaar gis nañu ñëpp mhm. bëgg nañu ci tabaarakallah masha sëriñ Maodo waxoon ca jamonoom bu ma juumul 1966 la wala 67 mu ne salaamun aleykum ahla tuuba bi yowmikum wa akrim bihi yowman bihi qadima alqutbu wa akrim bihi yowman yatiihu bi nuurihi banu shaabi turran bal kada alsharqu walgarbu fa yowma quduumi cheikhi ramzi kifaaxina tasaaqata ahlu shirki fantasara saxbu ka anni bihi wan nuuru yamla'u wajhahu yaquulu ila taxriiri yaa ayyuha shaabu alaa baaraka arraxmaanu alaa baaraka arraxmaanu fil ahli bacdahu li yuxyiya darban saara qablu bihi rakbu fa haadihi taxiyaati wa tilka mawaddati uqaddimuha wal ruuxu wal jismu wal qalbu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Hadj Malick dama ko waxee ci njëlbeen ca Égypte bu mu nekkoon ñu invité ko ci màggal Touba ba ñu organisé woon foofu ci Algérie sénégalaise bi nekk foofu di njabootu maam borom Touba sëriñ bi nee na booba sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké donte le fekkee bu ko woon mu nga woon te jotaay bii nga xamante ni si la maam si la Cheikh El Hadj Malick dafee xasida bi Sëriñ Fàllu di doomu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké mu nga woon it ci jotaay bii nga xamante ni sila la Cheikh El Hadj Malick kàddu yu rëy yu am solo yi nee na Cerno Jóob di rakk ci Baddo Sey jànge ca daaray sëriñ Cheikh Mbacke keroog mu nga woon ci jotaay bii nee na njabootu maam Cheikhul Khadim ñu takkoo takku ñu nga woon ci jotaay bii Serigne Maodo xam ni sët la ci góor gu tedd gii soppe la ci moom di suñu maam Cheikhul Khadim moo tax nag la xolam yëgoon mu tuur ko ci ndigalal suñu borom macha allah kon ci ci bisu màggal googi ba te lépp rek di cofeel macha allah kon dañu yëg ni keroog Cheikh El Hadj dafa yëg di wax am ñoo xam dañuy jóg rek di wax fu ñu foo jógee di wax nag ay dégâts rek ngay def waaye boo yëgee di wax mu des ci xolu ñi koy dégg kon ñoon Baaba Lamine Ñas macha allah ñu nga woon keroog ca jotaay ba doomu Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Ñas macha allah ak Cheikh Mamoun Ñas mu nga fa woon. yàlla yàlla lo yokk ay leeram cheikh Mahi Niass mu nga fa woon macha allah cheikh Hassan Cissé imam Hassan mu nga fa woon. sëriñ bi dafa wax ni. Mhm. maanaam ci wolof. ñu mhm. koy firee yàlla bu jàmm dañ di dottiku ci ñooñu maam Cheikhul Khadim. Mhm. radiyallahu taala ci la ko jiitu ba ci bésu tey biñ ma wooy man Hadj Malick ma mhm. fekkee jotaay bi màggalal jotaay boo xamante ni ah. bés boobule ca la xutba bu mag ba dellu ci njabootam mhm. liggéey yàlla ba dellu si am ndam gu rëy ga mu am mhm. woo tedd na ci bés boo xamante ni maa ngi gis maam Serigne Touba leer gan ko gand penku ak sow man xaaj Malick fu ma gëstu rek gis naa ni am na lu ko enveloppé te di leer. allahu akbar ci charqu xarb. Mhm. bés bii bés bi nga xamante ne ci la dellu si. Mhm. ci réew mi ñuy wax Sénégal. Mhm. ak la mu màng ci yiw ak mbaax ak ngërëm. te nga xamante ni moom Cheikhul Khadim moo doon sémbalu sémbalu maanaam li ñuy wax combattant ki nga xamante ni xarekat la. ci lépp loo xamante ni rek yàlla soxla na ko yom saa soxla na ko mu fexe ba def ci yitteem ga ba ci gën a kawe ba loolu tegu ci loxo mm-hmm. ba mu ko amee lu xew mu ne te saaqata ahlu shirki fan tasara sax bi mm-hmm. lépp lu lu lu lu lu ànd ak bokkaat bi mm-hmm. bi nga xamante ni kaddu yàlla la bëggul woon mu jib ba tax mu tabax fi lu ne keroog ba Cheikhul Khadim ñëwee loolu yëpp mujj na màbb ku ci am ndam képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu mu ne man xaaj Malick maa ngi mi ngi mel ne maa ngi ko gis gisu xol leer gaa nga feeñ ca kanam nga feeñuk mbégte lu muy wax moom Cheikhul Khadim yaquulu ila tahrir ya ayuha shab waaw waaw allahu akbar lañ ñu doon bëgg a tënk bi mhm. ñu ko notee dagg naa jéng ya mhm. waaw naa lépp loo xamante ni noon bi bëggoon na ko fi samp ci mbaaxu yàlla mhm. kon nag man xaaj maag li may ñaan mooy yal na yàlla barkeel liggéeyam boobu barkeel itam njabootam gannaawam mhm. ndax ñu mën fi nekk di saytu yoon wi nga xamante ni moom la Cheikhul Khadim rëddoon ak mag ñu baax ñu mu bokk lool jamono mu ne nag fa haadi taxiyati sama nuyoo gi nii ci seen biir ma leen koy ma koy koy yëkkati ngeen koy dégg ci seen nopp yéen ñoo bokkal jamono te nuyoo bi kat am na lu ko jiitu woon. Mm-hmm. mooy lan mooy sama cofeel laata may ñëw di wuyu si di wàkk si di wàll si ci jote bi jotaay bi. Mm-hmm. nee na sama cofeel jiitu na ma fi. Mm-hmm. fa haadi tax wa tilka mawaddati. allahu akbar. lu mu àndal maa ngi leen koy jox joxu ku bokkook yéen xam ni. yéen bokk lépp yéen a bokk mission yéen a bokk maam yu baax yi ànd ak sama ruux itam ànd ak sama xol ak jëmm ji ñëw na lu ma amoon rek ci lu cher ci man xaaj maay te yàlla dénk ma ko ne naa ko yittewoo indi naa ko tey bokk ak yéen bés bi mhm. ndax am na ñuy wuyu si am na ñuy wuyu te seen xol du ñëw mhm. waaye man bokkuma ci ca wuyu si naa te xol bi ñëw na lépp ñëw na allahu akbar Chérif Sidi Ahmed nee na cant ak ngërëm gunge nuyoo bii muy waaj a yëkkati ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala da ngeen di abonné fii